wane suñu suñu mbégte ci ànd gi nga xamante ne bi ñu ñëpp àndandoo nañu ko muy ñëpp ñoo xam ne rek ñi ngi ànd di liggéey ak président muy euh, ñi nga xamante ne bi ñoom la doon liggéeyal mu ñu nekkoon ci benn bokk yaakaar ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw bees également ngir ànd ak moom ngir ñu liggéey Sénégal ngir intérêt Sénégal muy le président euh, Idriss Seck muy le président Moustapha Niass muy madame Aminata Mbengue avec le PS et tous les autres partis de la mouvance présidentielle tey jii ñoo ñëpp seen i njaboot ñu ngi fi tey ànd ak ñun ñu bokk yendu di xàccandoo di dóorandoo ñu ànd nag wër li nga xam ne moom le président def ci dëkk bi parce que ñu bare bari dañuy wër di siiwal naa président Macky Sall dafa dara Touba dafa dara Touba te loolu wut ak li nga xamante ni bi moo li nekk barki démb wax nañu ne li muy def ci dëkk bi li ko yées juróom-ñett fukki milliards bëriwut loolu dañ koy mën a lim boo jëlee tël yi nga xamante ne bii mooy 30 bi wër daanaka 12 milliards 800 millions la nga jël li nga xamante ne bii mooy assainissement ndox mi nga xam ne mooy jóge ci kër yi mat 9 milliards 700 millions nga jël li nga xam ne mooy assainissement taw bi loolu itam muy xaalis bu bëree bëree bëree bëri am na lu ñu ci defoon lu bari yokkaan nañ ci 1 milliard 200 ngir gën a yokku conduite ngir yóbbu ko ba fa nga xamante ni moo di euh, moo di Pouf di nga jël ci wàllu santé am ci lu mat 32 milliards ci benn hôpital amaat ci 6 milliards ci biir hôpital Matlaboul Fawzeyni te ma taxaw ci 32 euh, milliards bi nee nañu Afrique de l'Ouest hôpital mel amu fi te bu paree buñ ubbi ko ba nit ñi gis ko loolu danañ teg seen bët ndax li may wax foog naa mi gis suñu kanam kon ñëpp na ñu téye lool ñu denc ko mu mat lu mat 300 lits yoo xam ne sax mën nañ ko yokk ba mu mat 500 lits boo ñëwee fi nga taxaw ni tey man na lu mat juróomi milliards. loolu bokkut ak ndox mi ñetti forage ak ñetti château d'eau yoo xam ne ren jii rek aujourd'hui ñu ngi ci boolu ma ci li nga xamante ne bii pare woon daaw avant euh, avant màggal gi nga ñëw ci wàllu électrification tey ji am na 20 kilomètres yoo xam ne ñu koy def bu fekkee da ngay dem sàmm euh, fàtte naa léegi wàllu sécurité sax bi may bi may njëkk di wax li fi def ci eh, ci ay commissariat euh, li nga xam ne aussi moom la ñu def ci wàllu brigade de gendarmerie ci wàllu escadron bi loolu lépp également pour renforcer sécurité dëkk bi parce que dëkk bi dafa rëy fenn fu ne dafay jóge également ñu ngi may signaler les les centres de santé donc loolu lépp bu fekkente ne bii boole nga ko dafay loo xamante ne bii doy alal bi takku te loolu moo tax sunu kilifa yi nga xam ne du nu waxal ku dul yàlla lu dul yàlla aussi du leen tax a wax moo tax waxtu wu nekk ñu ngi sant di ko gërëm loolu si moo tax sëriñ bi ne ko rek yow defal li ngay def te bul geesu bul seet nit ñi defar ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa mi tax ngay def dana la fay te sëriñ Tuubaa am na ko fay te ku mu fay da lim am loolu mooy li ko ko may kon loolu yi nag moo taxoon te ñu ne ñun dañuy jóg euh, parce que ñun dañuy liggéey ak moom au plan politique parce que ñun aussi dañuy dëkk dëkk bi di ay taalibe di ay gor te ku ñu defal ñu war sant dëkk ci également ci réew mi ba képp koo xam ne yaa ngi tabax réew mi am ñu jóg bëgg a ndasaxal liggéey boobu ci ay wax yoo xam ne ay waxi kasaw kasaw yoo xam ne tegu fi na barab dañuy jóg nag loolu ne leen kat mbir mi nii la demee ñay wax loolu nag waxuñu ak ñoom parce que duñ mos a wax ñu mukk ci àdduna mais ñun ñu ñuy teel intéressé ñu mooy le peuple sénégalais ñi nga xam ne tey jii mi ngi nii xool ñu ne kat boo ñëwee fii ci Touba lii mooy réalité bi fi nekk te réalité bi fi nekk alhamdulilah mooy réalité également bi nekk dans tout le Sénégal boo demee Dakar investissement ya jege na 2000 milliards boo demee Casamance c' est la même chose boo demee côté côté nord c' est la même chose nga dem côté est c' la même chose foofu dem fu ne noonu la dem parce que aussi loolu mën na ci ñëwaat li nga xam ne mooy programme d' équité territoriale et sociale nga xam ne bàyyiwuñu dara eh? kon loolu nag obligation la si ñun ngir ñu leeral ko nit ñi ba ñu xam ko bu seen bopp yi mën a ubbiku ba kenn du mën a ñëw di ci def loo xamante ne bii ay wax yoo xam ne wax yu waxu waxi ko daan ko saret la loolu moo tax ñun tey ñu jóg jël suñu ay responsabilité ànd ak suñu ay xarit ànd ak suñu ay mbokk ànd ak suñu ay partenaire politique ngir nag taxaw fësal bilan bi nga xamante ni mi ci ci dëkk bi te kenn ku nekk bu ko fësalee commune ba mu dëkk kenn ku nekk bu ko xam ne président li nga xam ne def na ko ci réew mi ci diggante ba gàtt bi kenn xamul mu taw Covid 19 bi dafa ñëw daaw daanañ ko suñu kaw te kenn xaaru ko woon euh, ñu jël lu man 1000 milliards ci budget bi defaat ko feneen loolu am ay chantier yoo xam ne xañ na yeexal na ko mais plan de relance bi ñu teg tax na ba tey ji chantier yëpp reprendre na ba alhamdulilah ni ñi ñi ngi ñi ngi liggéey ba feeg diir bu gàtt bu ci yàlla andee xañ na yu ci bëree bëri mën nañ ko réceptionné mais ñun et bi également ci ci bit boobu lañ ko defee pour xam ni nga xam ne moo xew sur le terrain lan mooy dox lan moo doxut su boobaa ne danay xam ñun ci sunu liggéey yan xal yan conseil eh, yan euh, xeltu la ñu mën a joxe pour que kat changement am ci yenn yi ngir yëf yi gën a gaaw ngir lan lu nekk moom na mu ko yéenee woon te xam ne aussi ñi ko yore aussi ñoom it noonu lañ ko bëggee sunu borom dimbali nañu ba mu demee noona parce que ñun ñëpp ñoo ci war a bokk benn taxawaay bi. kon loolu aussi bokk na ci objectif li nga xamante ne bii mooy visite bi te aussi ñun foofu lañ mën a féetee dëkk bi gis nga c'est pas pour ne comme ànd ak un député de l'Assemblée nationale moom itam bu demee assemblée lépp lu mu fa war a plaider dëkk bi Touba ak askan wi bu soobee yàlla dana ko dana ko def ci ci fànn googu pour dire que loolu lépp rek dañ koy def non pas même pour di def politique ndax li dépasé na politique parce que fi ñu nekk ni tey jii eh, APR moomu ko Sénégal moo ko moom kon li ñuy def nañ koy def pour les citoyens sénégalais dañ koy def également pour askanu dëkk bi ak pour mboolem askanu réew mi yëpp. xam nga jëf-jëf ju day nii ay nit jóg nasaxal ko ne jëf ji amul. dox ba gëmloo ko nit ñi ba nit ñi voté ci loo xamante ne bii méngoowul ak li nga xamante ne mooy mooy la réalité loolu am na ci donc si surtout un problème de communication am ci ñeneen ñoo xam ne nag ñoom sax dañuy jóg nag di xeex te malheureusement nekkul sax ci teneen politique nga xam ne kon ñoom li ñu def sax peut-être dañ see waroon na maalu di di di si xel nit ñi ba nit ñi gëm yooyu yooyu nag yooyu nag moo tax ba ñu jóg am taxawaay bi ñu taxaw ngir ci ci na googu lépp loo xamante ne bii mooy li nga xam ne mooy li méngoo ak réalité li méngoo ak dëgg ñu wan ko nit ñi ba ëllëg bu ñu def seen choix ñu mën ko def de manière éclairée mais teg ko sur des éléments factuels objectifs ba nga xamante ne kenn du leen mën a nax kenn du leen mën a dugal ci ci ci giraawal yi. sancaani ñooy voté ñu jël euh, mboolem fi ñuy wote fépp yóbbu ko ci sancaani ne leen kat lii moom xañ na ay problème la nangam ak nangam moo tax ñu jox leen waaye la jàpp ne lu baax la bu dikkee ñu génne leen ci bu ndox ñëwee duñ leen jox bu courant ñëwee duñ leen jox bu tali ñëwee duñ leen jox bu assainissement ñëwee duñ leen jox bu ñu séddale kenn du leen sédd mais kooku ndax nga ko mën a jàppee mbalit jël jël jël wate wakaay teg ko teg ko fi moom ne ko di ñun ñu jógee fi nga xamante ne bii moo ci digg dëkk bi dem nga bëgg su bis bi am wateel la mais mais day sanctionné loolu nag am na ay parce que ñun boobu ba tey ñu ngi ciy wax te fu ñu ci war a wax wax tey jii am na 20 kilomètres d'électrification yoo xam ne dugg na fa PACASEN ñi nga xam ne projet 9 milliards la dugal na fa également benn benn benn tali euh, ndox mi également ma nga fay dem pour adduction d'eau yi loolu aussi PACASEN am na liggéey boo xam ne mi ngi ko ci euh, mi ngi ko liggéey te loolu rek mooy ñun li ñu bëggoon ñu di ki sant na ki nga xam ne mooy borom dëkk bi la xalif général des parce que moom aussi euh, loolu daf ko yitteel ndax xam na ne fu waaye mën ni jóge dikk ci dëkk bi Serigne Touba moo la yëkkati te daw ay jafe-jafe fa nga nekk parce que amoo téléphone amoo ndox amoo courant nawet bi neexatul nga naa daw ñëw Touba ndax mooy mooy mooy daw làqu gi loolu mën leen su indi Serigne bi xam loola ba te ji lépp loo xam ne jógati na mu ne kat ñoom nañ leen jox seen wàll autorité politique yi nga xam ne aussi ñoo yor réew mi ñoom mosuñu bëgg lenn lu dul loolu ñoom itam loolu ñu sawar ca lool ba tax ji tey changement am na. moo tax loolu ñun bañ accompagner ak communication a accompagner la ba tax tey jii ñu jógaat ndax xam nga daaw ba ren mu kenn mënut a def benn activité parce que dañu tëjoon réew mi am na sax ñu ko doon def mais ñooñu bu leen neexoon duñ méngoo ak yoon mais mënuñu ànd ak ne moo jiite réew mi mu ne na ngeen conformé wu ci li ñu ñuy jóg di jalgat si yoon woowa mais tey jii ubbi nañu réew mi yëpp kon ñu reprendre les activités politiques lii mooy li ci euh, li ci jiitu biir koor gi danañ def bis bu mag boo xam ne bisum ndimbal lay doon te ni ma loolee duñ ci fàtte gox yooyu ngay wax bu loolu jàllee ba ñu wari fas yéene amal ay tournée ci biir mbooleem village yi nekk ci dëkk bi ndax tubaa commune la boo xam ne c'est plus c'est près de 94 villages fu ne fas nañ fi ne teg sunu tànk gisanteeg imam ya fa nekk gisanteeg sëriñ sa fa nekk gisanteeg chef du village ya fa nekk gisanteek ndaw ya fa nekk gisanteeg jigéen ya fa nekk gisanteeg mag ya fa nekk waxtaan ak ñoom xam ma lan mooy seen ay jafe-jafe luñ ca mën a saafara ñu saafara ko luñ ca mënta saafara bu ca mairie mënee dara ñu àggale ko ci moom lu ci mairie mën dara bu waree àgg aussi Dakar au niveau central ñu àggale ko foofa donc yemale euh, ci commune Touba danañ def ces tournées là dans les communes du département de Mbacké ndax fu ci nekk am na ay jafe-jafe ñu dund maa ngi maa ngi xalaat fu mel ne yoon wi nga xam ne moo jaar diggante Taïf ak Sadio donc loolu lépp prévoir boo xam ne war nañ ko def mais mënuñ ko def tu dem demuñ fa ba gis ko ba xool ban état la toll wax ak nit ña dox ci ba saafara loolu foog naa nii bu ñu ko defee ndax élection yi aussi ginnaaw suba la balaa balaa man at parti bi tey taxaw nañu alliés yi taxaw na ñu la mouvance présidentielle taxaw na ñu on est d'attaque pour que incha allah élection locale yi di ñëw non seulement ñu gagner la département mais ñu rafler l'ensemble des communes du département de Mbacké c'est ça l'objectif et aujourd'hui avec Idrissa Seck qui, qui est venu nous rejoindre et qui avec tous les alliés également qui sont amuñ benn benn benn benn ñaaw njortu ci ne objectif boobu ci yàlla àndee danañu ko atteindre naa ñu si kanam xëyuñ ci ñoom te xëy te te te